mbokk yi beneen combat ngi noonu waaw Caatu Moussa Diouf moo ñu woon ginnaaw xeex da lay xeex Rams Jams Jams ak Caat Caat moo yor ngemb bu weex bi rakk la ci Moussa Diouf Jams a ngi noonu ku ñu jóge ci victoire Jams à droite Jams wicci na ko Caat Jams ñaari njool lañu caatu Moussa Dioum Jams xale bi rakk la ci musa Dioum ma nga dëkk Inteset Jams a ngi noonu daanaan bi moom tamit Jams daa bëgg a génn wala stratégie lay teg caat daa xeex rek daw jël ko Jams caat Jams a ngi door ci suuf caat jàpp na nag defagul dara Jams a ngi ñam ci suuf ma ngi koy xëy caxabal eh mii me nag ko mu bañ xam na ko jam si bërekat la ma ngay dawale tànk ba caxabal na ko daan na ko wallaay ndeysaan rakk la ci Moussa Dioum ñoo bokk ndey ak baay moo jël relaf bi buñ ko jàppalee parcelle dinañ am champion ndax ndeysaan magam daf na fi lu ne champion la magam julli na sant yàlla julli ci yonente bi nee na maa ngi ñëw daw na ma ngay dem signé na deuxième victoire ndaanaan la parcelle 1 ba 26 am na ndam xale bi rakk la ci Moussa Dioum ndeysaan dem te yàlla sa yàlla na ko yàlla xare àjjana ma nga noona daw yéeg na ca loos ba xaalis lay wuti nag noonu nga leen gise noonu xaalis lañ bëgg dañuy ñaani rek xoolal xool ko xool ko day ñaani xaalis boo daanee da ngay ñaani gis nga ko léegi deux mille ak cinq mille dix mille dàqe gis nga amateur yi ngi koy tàccu wallaay ndeysaan xale bi loo gis ci Moussa Dioum mi ngi ci moom gis nga ko dem na ca kaw jërëjëf Khalil lamb ji nag mu jeex de beneen combat ngi noonu Yakhim Bambilor la moom lañ jàkkaarlool Boy Jaxaaw jarbaat ci Eumeu Sène wala rakk ci Eumeu Sène moo yer ngeen bu weex bi arbitre sifflé na seen diggante Boy Jaxaaw Yakhim Bambilor ña ngay ñoom ñaar ñëpp bi ñuy ñu mujj ci arène nationale bi defet lañ fi jële booy jaxaa mbisaa na ko fi daan yàqi mbaam bi loolu lengs ko fi daan waaye boo jaxaw amaan na fi grand combat ba daan mais nekkutoon fii tey ñoom ñaar jamaïcain moo leen boole dimanche 13 août 2023 fii ci arène nationale grand combat Bébé Diène Baye Mandione Bébé Waly moo fi daan ñami ñami liiru bu ngor moo daan caatu kolobaan caatu Moussa Dioum fi daan jams ñaari xale yaa ngi noonu di lewtoo ndeysaan congo amagul xeex amagul ndeysaan ci taxawaayu amateur ak supporter yi round d'observation arbitre àtte na ma ngay wax ak ñoom sifle waat na génn seen diggante ñaari xale yaa ngi ak jaxaaw jaxaaw ak jaxaaw tàllal na loxo ba rek yàqi jox na ko tànk ba attention cokkaas na bëgg a dem tàllal na ko loxo ba rek ci kanam gi dóor na ko yàqi arrière yér na ci suuf dóor na ko attention jël na ko paquet na ko daan na ko booy jaxaaw daan nañ la Yakhim Bambilor pakete na la daan la jël bu rëy day songu songu day jeexal bëre xale baa ngi noonu borom Bambilor borom ñàgg baram ñàkkurab borom Tiwaawan pël borom déeni biram ndaw moom dem na day ñaani xaalis booy jaxaawe ngi noonu toog day ñaani xaalis xaalis ku daan wute xaalis dañoo sonn booy jaxaawe ngi noonu toog oh jël bi jël bi jël bi bett na ko Pakete baa ko bett Pakete ba mbër day songu Bébé Diène a ngi noonu di dugg ci géew bi Khalil pour nga complète am li nga bëgg a am bébé ngi noonu combat bu jeex boobu ba tey nag day dugg ci géew bi moom mi ngi noonu di def ay affaire am di sotti ko booy jaxaawa noonu dañ koo pakete Bébé Diène nee na booy lan la andi fi mbooloo bu bëri nag bu bëree bëree bëree bëree bëri ndeysaan Khalil mi ngi noonu yaa ko teree neex ngay discuter ña ngay discuter entre Bébé ak CNG bi ak police yi ñoo ngi noonu di discuter ndeysaan gaa yaa ngi noonu Père Kayre ngi noonu gis nga leen bébé a ngi noonu takk ay veeram Père Kayre ngi ci ginnaawam ñi ngi noonu léegi mu dugg moom bébé Diène la tànk Baye Mandione di ñëw lamb jaa ngi nii mbokk yi Bébé Diène duggagul mi dugg na nee nañ ko jàllal ñi ngi noonu duggaguñ de ba tey Bébé Diène duggagul lijjanti ba bari na lool batay tey duggagul moom Bébé <laughs>